فبأي آلاء ربكما تكذبان الحمد لله وسلام عبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي mbokki julit yi mbokki talibé yi xarit soppe yi seen xarit sen soppe Serigne Fallou Rahman ma len di nuyu di len wax ne ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax nekk ci liggéey bi rek fas yéene leen laaye biir kër gi ni muy doxee ndax gis nañ nit ñi daan fees dell ci mbedd yi ñii di fanaan ci mbedd yi ñii di def ay weer ñii ay fan ñii diir bu yàgg ngir jot ci man mu jafe lool ndax lan day fekk ñu baree bari jiitu leen ñoo xam ne ñoo leen jëkk a bindu ak ñi nga xamante ne dañoo yàgg a bindu ñëw bu rang boobu noonu ñu nar koo topp boo koroog muy ñuy ñuy dugg loolu dafay faral di yàgg su boobaa nag dañuy mujj di dal ci kër jàmbur yi ñii di génn seen néeg yi di leen abal ñii di dem di wut fu ñuy nekk ñu xam ne loolu lu metti la te dëkkandoo dafa xam xàq te bëgguñu kat di lor benn jullit ñu am ci ay xalaat yu mag yuñ ci maase def mooy képp koo xam ne bala ngaa déplacé wu di jóge dëkk ak dëkk di ñibbiwaat wala ngay ñëw kat ci coono ñu ne dangay woote. ba am rendez-vous soo ko amee dinañ la yónnee SMS ci sa biir téléphone nga liir ko soo ñëwee moom ngay wane ci bunt bi ñu xam ne yow kat. bokk nga ci rendez-vous bi war a dugg tey bu ko defee ñu bàyyi la nga ñëw toog mën ngaa ñëw sax njëkk a yegg si doomu aadama fekk mu ngi ci yoon wi di ñëw su ñëwee njëkk laa dugg bàyyi la fi dugg nga njort ne moom kat daa am lu tax mu dugg fekk na déedéet du loola daa fekk moo la njëkkoon a bindu ndax mënoon ngaa bindu jeudi fekk moom mardi la bindu woon bindu yi noonu lay toppante ku njëkk a bindu rek su ñëwee mooy SMS am ca lay amee numéro bi mu war a duggee loolu ñu koy laaye biir ñoo ñëpp nag. demoon naa ba la sama ndigg li dafa sëggoon fu nekk dem naa fa def naa rajo def naa scanner dugg naa fu nekk amul fu ma demul nii laa daan doxe ba may ñëw nii laa doon doxe nii boole lépp di metti amul lu sedd nii laa daan doxe wax dëgg yàlla keroog bu ma dugg see ñëpp ma doon xool taxi bi ma wàccee maa ngi sama mag bi xaadim mbeng nii laa daan doxe nii waaw dama sëggoon ba mel ne màggetum téeméer at lafañoon naa lafañoon naa lafañ sax ma tane woon ndax sama borom keur carnet mutuel presque 600000 def naa rajo def naa scanner fu nek duguna fan principal CTO waye dal wax deug yalla mom ci benn waxtu benn heure bima ñew subatel suba teel Rahman fajal ci baaraamu tankam mag bi mom la ma teudal ma teud mu di ko jeex ba xam fan la yax bi déplacer wu mu wat ko. bam ko ci ne ko til sama mag bi xaarim daf ne lii damm na dootul jóg kéemtaan mënut a paase lo ndax wax deug yalla am yem na ma yem na ñepp sama fami yepp sama borom kër bi nga xam ne sax pompier la moom dafa waaru ndax moom pompier la rewle na sax jigéen defal na jigéen lu ne mais dafa waaru dafa yéemu si moom waaw wax na ko kalaasam yëpp Dakar naaf gi yëpp yëg nañ ko. am feebar yu bari yu ma jànkonte loon dem naa fu ne fay naa fu ne fay naa lu ne tamit quatre mois gisuma règle léegi mujj gi nag sama biir bi di métti mu def ma biir bi métti daal après ma dem hôpital su ma demee hôpital ñun ma léegi mu tane mu tane léegi nag. ma ñëw expliqué ko seen bi nekk man daal damaa toog gisuma règle te sama biir bi day métti rek mu ni ma waa baax na léegi bi ma joxee garab yi ma bi ma ñibbee sama kër sachet bi sax jeexul deux jours rek laa ko naan troisième jour bi après lépp normal ma commencé di gis règle règle douloureuse bi dañ carrément. ah aussi hémorroïde hémorroïde bu métti métti métti boo xamante ne bu ñëwee du mën a def dara du ma mën a tëdd boole ko xasan nag sama bopp bi aussi da doon métti. waaye bu ma ñëwee ba wax ko ko garab bi benn yoon rek laa ko def rek après bopp bi métti bi sedd ba tey yëgatuma bopp yi métti te métti bu tar la doon metti te doon métti ci ndongo li jàpp fii ci bët yi te doon métti torop naan naa garab bu ne waaye su ma naanee keroog lay gën a métti waaye bu ma fi ñëwee ba tey wax dëgg yàlla tamit na na amatuma bopp yu métti gën a góor góorgóorlu ci régime yi di gën a gën a góor góorgóorlu ci lekk yu baax yi ndax nekk mën naa baax te neex te du am benn jafe-jafe ndax lekk lu mu neex neex su paasee pour ga rek njariñu neex gi jeex na te sénégalais moom lu ci ëpp du lekk lu baax lu neex lay lekk xool ni ñuy composé yenn ñam yi ngir sàmm suñu wér-gi-yaram ak gën a aar suñuy yaram te xam ne kat doomu aadama amul lu dul jëmmam li ñuy wax régime alimentaire na ko ñëpp di fonk te nga xamante ne fépp bépp lekk boo xam ne day indi gàllankoor doomu aadama ñu moytu ko lu mel ne gis nañ ne ballonnement lu bare baree bari koo gis danaa la léegi mënatuma tee njàpp wala sama biir day jël air loolu li koy waral mooy yenn xeeti lekk yi ku ne xam na ne am na beñe yoo xam ne am na produit yoo xam ne buñ ko ci defee rek beñe bi gonflé jug na muy gonflé beñe boobu noonu lay gonflé butit am na ci yenn xeeti mburu yoo xam ne tamit produit yi ñu cay def ba mburu ya gonflé noonu lay gonflé butit am na ci yenn soow yeeg ku xam na bu ñuul baaxul ci ndoxum siti ku am ndoxu siti war naa moytu di yey gerte gu bari ku am ndoxum siti war naa moytu soow war naa moytu tamit di lekk yenn jën yu ñuul yu bari ku ne xam na ne yàpp bu am graisse baaxul rawatina yàpp xar nga xam ne feebar yu bari ay gutëg yu baree bari yoo xam ne da koy indil gàllankoor ci doomu aadama yi nañ koy moytu bu baax a baax a baax a baax di lekk-lekk gu baax tey gën a éviter yenn xeeti lekk yoo xam ne day lor doomu aadama yi lekk rek tëdd baaxul. ibaadu laa nag damay dund sunna macha allah di andi ay témoignages ci euh, sëñ Fallou alhamdulilah gëwuma ko woon foogoon naa ne duma dox ci àdduna ba daj koo xamante ne euh, sama jaaxle gi ma amoon ci àdduna dina ma ko teggee euh, alhamdulilah ba mu ñëwee fekk naa ko si sëñ Fallou parce que ñu bari bu ma gisee may témoigner ci lii dinañ xam ne duma waxee caaxaan sama métier pour ma gëm mooy problème. man damay sang néew waaw loolu la ma yàlla nattoo mooy sama métier amu beneen métier bu dul loolu à part alxuraan bi ma gëm loolu laa gëm depuis 2016 sama doom tëdd feebar samay mbokk yëpp xam ko ci man dafa dérépané woon affaire bi def ko AVC 2016 bam ko defee AVC 2016 may daw hôpital nag euh, daawoon naa dégg na façon nit bu ne xale bi daawoon na dund ay coono comme ni euh, métit day jékki-jékki mu ne tànk yee métti wala mu jékki-jékki di jooy ñàkk du nelaw danaan teel a xëy ba pare boole ci di tiit nag lu mu daan gis rek day tiit même buntu sax boo ko laalaan day tiit bu mu dégg day tiit mais macha allah léegi day nelaw premier jour ba ma ba ma ba ma jëlee garab bi defal ko man dama dem di yëndu ma ne est-ce que sama doom bi dund na ma naan kii ah ibbi bunt bi ndànk yoot yëndu may ba ma yëndu ma gis ma ne waa kii moonte day nelaw de kii amuti nelaw. si laa gis jémmiñ bi commencé dellu xale bi di nooyee bakkan te xale bi toog na 6 ans du nooyi bakkan depuis 2016 du nooyi bakkan ba mu AVC la gëj a bakkan mais maa ngi koy soog a gis si ren ji ci sëñ rax ma laa gis sama doom sama doom di lekk yàpp daawul lekk yàpp di nooyee bakkan te daawul nooyee bakkan rek man si jëm boppam sax dama cee xaw am dama cee tanewaale parce que dama demoon ba am trouble kii euh, règle mais dama gis carrément ba sama doom bi ñëwee fii ba léegi man sama règle dafa normal te man sëñ Fallou joxuma garab di moom a ci jaaxal de. wax dëgg yàlla macha allah sëñ Fallou daal dama koy ñaanal gudd fan. wér wérle yàlla lépp lu muy def ci doomu aadama yal na ko yàlla denc si misaanu xasanaatam ngi wax sama iba euh, sama mbokk ibaadu rahmaan yi ne yàlla ba mu bindee doomu aadama ba pare am na ñu mu may am na ñu mu may te dëggantaan am na ñu mu may. man de gowuma woon te ku ma gis dina xam ne carrément man yomb màgg ba samay mboq dañ koy wax sax mais macha allah fu mu ne nii moom bu dee jébbalu moom jébbalu na sëñ Fallou macha allah. nga xam ne moo doon wax léegi ci Fallou Rahman damaa bokkoon nag moom benn koñ ñoom ñu nekk ay suñu doon ay Ibadu Rahman yaay papa ñoom ñëpp suñu gëm sax daayira wala ñuy gëm dem ci sëriñ wala ñuy gëm sax kurus kon tey man bi ma ko fekkee fii sax ma damaa tiit ma ne lan la war a wut si fii. kon bu ñëwee seede lii man damay gëm ne am na lu mu gis parce que xam naa sunnit yi man dama leen daan fréquenté Ibnu Taymiya bi ñu nekk foofu foofu laa doon nekk kon bu defee lii ku nekk rek na jàpp ne kii am na lu ko yàlla may te nit nag bu ko yàlla mayee dara dañ ko koy nangul gis nañ doomu aadama yi cofeel gi ñu am ci sëñ Fallou Rahman ndax lan nit ñi kat fi seen njariñ nekk dañ fay daw dem ndax yàlla moo dogal loolu gis nañ dëkk yi nga xamante ne ñoo wër Cees ak Tiwaawan ak li ko wër yëpp lu ci mel ne ay kër coon saar nga xam ne ay dëkk la yoo xam ne macha allah ay nit ñu baax ñu tedd ku ci mel ne soxna Anta Ndiaye yor fa liggéey bu rëy ñu bari tawatoon fa te kenn yëgu ko noon lool yàlla mi dimbale jaarale ko ci suñu jëmm yu xeebu yi ñu faj leen lu mel ne ay njaxate njaasaan lu mel ne ay sërifloo xeeti dëkk yooyu yëpp ay tubaab Pekku. sëñ Fallou Rahman nag di sëñ Fallou Rahman Géejawaay di sëñ Fallou Rahman Dakar sëñ Fallou Rahman àdduna bépp la ba ci fii ci kër Thione faj na fi ñu baree bari dugg nañ fi kër par kër ñi ma fi faj ñu gis tan bu baax wér nañu wér nañ pilik soxna si toog nag dafa feebaroon bi mu feebaree nag mu am ABC bi mu ko amee nag ñu dem ci Fallou Rahman ginnaaw yàlla ak yonant bi nag dañ ko demee léegi ñu ngi ciy gis ak tan moo tax ñu naa ko woo séedeel ko lool te may loolu leer na ma parce que maa ngi ci biir kër gi di gis mu am tan lool moom feebar ba koo tëral ñu ko yëkkatee ko tëral lu man doom ji ko yëkkati di ko tëral munul woon boppam dara mënu woon a lekk sax dem na ba mënu koo def dañ koy sexal bu jógee tamit dañ ko yëkkati mu jóg mënatul woon a jógal boppam lu muy def dañ ko koy defal waaye munu koon te léegi sant yàlla dina lekkal boppam dina jógal boppam dina toog fii ñu tegal ko siisa mu toog waxtaan ak nit ñi mi ngi wax te mënu woon a wax daa di man ba làmmiñ bi dama loxo bi ànd ak moom ak tànk bi te loolu lépp tey tane na kon nak dañuy sante yalla bu baax sama dom ji di Ousseyne Dieng dafa wérati woon daan crise mënul woon wax en plus tamit gis-gis bi neexul woon mais mako yobbo seigne sëñ Rahman ba dal ma sha allah gis na ci tan ni tane bu baax nak mu ngi wax legi gis bi tamit tane na crise bi da daan japp loxo bi ak tank bi mi jël garab seigne Faal Rahman ba tay mom mu ngi am tan bu baaxa baax sëñ Fall ak man daal ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na yàlla yokk xam-xamam ñun kër Thione Sarr daal kontaan nañ sëñ Fall Rahman gis nañ suñ bopp boo gisee ma toog nii di wax nag damay sant ki jara sant ki yàlla defal lépp defal ko kéemaan ñëpp xam ko muy sëñ Fall Rahman Ndiaye kër Thione Sarr gii di wanagu sëñ Babacar si di Tiwaawan danga fee def lu rëy ndax dafa bari woon ñoo xam dafay nekk danoo nekk fi feebar kenn xamu ko woon ñii paralysé ñi yor ay feebar te kenn xamu nga def fi kéemaan nag faj leen bërki démb damaa feebar am feebar bu nekk ci man xawma ko am na ay at ñu yóbbu ma xombal entraînement fukki fan ak ñaar ba ma waxee sama feebar mu nekk sama biir fii sama biir xool bii tiitoon naa lool sama serigne ngi taxaw kéré ban ma yobbo ñepp tit nañ ci man defoon nañ luma del ci waat bi ma xol ñu xol ma dëpp ma ni ma sa fi xa xol bi dafa xawa laal laal ci ak ak wextan bi li ma doon genn kenn xamuko ci ba mbokk yépp titon ci ma waay bi ma soxna ante Njaay mu bax mi dem jël xaalisam dem jinal ma rendez dem ba Dakar andil mako bitel yaangi legui la ci mujj naan su ma xëyee naan su ma ba ko commencé nan batay mangi sentir ni lima amone amoon yegatuma ci dara tanena seigne fall Rahman dal ma koy ñaanal yalla na gudd fan te wir sama doom bu góor bii ween la yoron ween wi jékki-jékki ngand mo yebbu ko hôpital Kaaba barki yenente bi ñu jox ma rendez-vous ni ma ñewal pour ñu opérer ko dama fa baye direct seigne fall Rahman. man sama ween mo amone commencé won di am problème ni ñewé yebbu la. léegi ñu bi mu demee Thiès ñu camp Thiès bi bi mu demee foofu noonu ñu ni danañ dañ koy opéré xuma yooyu noonu léegi bi ñu fa demee noonu ànd fa boo xoolee sama mu jox ma ay garab ma koy naan di am ma ciy diw boobu ba léegi daa rees tuuti ci des islam yi moom presque jeex na. faju naa fu ne fu ne faju naa waaye gisuma ci benn tan waaye bi ma yàlla booleeg sëñ Fallou Ndiaye Rahman ba léegi wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla. xam naa ni jàngooro yi ma amoon yëpp yëpp yëpp mën naa ni mënuma koo lim sax ci télé. nit ñi wae mana waye man na ci cité lenn rek muy sama sama sama biir bi ndax dama am ñaari opération ñu digaat ma benen opération mu wara nek ñetti opération mais bima démé ci sëñ bi ba ak mom ba wax ko ko ci la ma xamalé ni ma ñaari opération opération yoyu ñu la defal suñu suñu njëkkoon suma la gis yalla mën na dogal du am waye bi ñu la dik incha allahu rabbi de du am waaye tamit nag wax jooju ma jàpp ko topp ko ba yàlla dogal ma demaat hôpital ñu xool ma ni ma li ñu waroon a dindi ci yow gisatuñ ko ci ginnaaw yàlla sëñ bi la ma koy ñaanalaat bu baax gudd fan nga ànd ak wér. damaa feebaroon nag feebaru bu ma xawoon jaaxal maa ngi woon jabet ba pare amee tension sama tension bi sonal ma lool ak jabet bi hôpital régional fu ne dem naa fa. def naa analyse ñu xool ma di ma perfuser mais daal affaire bi te tanewul bi jabet bi jabet bi 3 la nekkoon 3 grammes 3 grammes la nekkoon muy commencé jël garab yi sëñ Fall yi di ko jël di ko jël di ko jël heure ma jëmee ji garab ñu euh, hôpital ñu ne ma li nga wàcc def ay 1 1 10 mu daal mu toll maa ngi koy sant. di gërëm di ñaanal sama doom ji mom tam yobon woon ko fa man dal mom la gëm mom la wul ki feebar na dafa daal won fi ci jëbi muy crise mu yobbu ko euh, hôpital ñu rojo ko biñ ko rojo ñu bind ordonnance ñu bi garab mom lay naan mais garab bobu sax wër wu ne ma jënd ko boo boo ko du tayé tam nak sax mu euh, tafata muy crise crise bi bu mu saa crise bopp bi lay téye téye yaram bi pour maanaam crise bi pour mu yëngatu mit bi mu yëngatu waaye bi ko Marème mi yóbboo ci fa Fallu boobaag léegi première ba mu fa demee ba nëgë ni xaw ma ñaata weer xam naa ne mat na six mois gis mhm. gis mu crise gis ma crise crise bi dafa deñ mhm. xele bi ñu ngi ma koo xarafal ba ma ko waree xarafal yàgg na mais crise bi mu doon crise moom laa ragal moo tax ma di ko bàyyi di ko bàyyi mais gis nga bi ñu xarafalee sax deful dara. nit koo xëy boo fa demee moom bu la mënta faj sax daal naa mënuma laa faj du ko lekk. du ko lekk bu la mënta faj da koy da koy lenn kii mu mënu ci dara waaye du waaye koo xam ne maanaam yebal na la ni mënu koo faj ba ba nga dem tudd na lay jàpp yàlla yont bi muñ te xam ni doo doo gis kenn ko faj. fu ñuy wax njiite njaasaan ndekk ca boori njaasaan yàlla dogal suñu jëmm yu xeebu yi def fa keemaan goo xam ne waa dëkk ba yëpp ko seede ndax gone goo xam ne toog na ñeenti at ba ay rakkam yëpp dox jàpp juróomi at mu doon indi kape yàlla dogal ñu ñaanal ko mu xëy yaayam demoon marché rek ñëw ñu ne ko kaa ñu betteel ak surprise mu ñëw fekk doomam di dox. maa ngi tudd Ndeye Khady Gueye dëkk fii ci Njiite Ndiassane ma amoon nag sama doom mu tawat tawat bi yàgg lool ba mu juddoo ba ni mu amee juróomi at mënta dox. mënta dox mënta wax mënta tamit raam bu baax dënn bi daan di jiital wala mu sëpp tànk yi di walang walang kenn xam lu muy niroo buy dox. maam ci nag ak jaaxle loolu nag fu nekk yóbbu ko fa hôpitaloo sëriñoo fu nekk ñu yóbbu ko fa lu nekk tam ñu ñàkk ko ci niñ ci ñàkk te ji fekkoon te danga koy xame tey mënuma laa xam nu mu toll. bu kon dajale mën nga ca tabax kër ñu sonn ci lool papa fu ma xam ma dem fa man fu ma xam ma dem fa fu ñu mën ne bërëb sàngeem boo fa demee sa doom ji dina dox. sol sama dal ba ñu ma ci dara. sama tu tank bi eh, bi mu juddoo am na dal mën ta dox ram bu baax sax mënu ko yag na lol ñeenti at bay japp juróomeelu atam yalla dogal nak fu ne ma yóbbu ko fa fu ne ma yóbbu ko fa diko ñaanal ay garab demoon nañ ba dekk bi ñepp yaakaar nañ du dox ma amana ci mu tiit lool jaaxle woon ci yeerum ci yaayam it lol na wax deug yalla ay yaayam tollu won dara mënul dem fenn fu mu tollu mi ci kawm booy dox sax da doo bëgg nit gis ko ndax façon raam bi muy raam bi defu sax yëfi nit di raam façon raam boo xam ne dund bi lay teg di dem waaye wax dëgg yàlla daal li mu fi def wax dëgg yàlla moom moom moom moom miracle la moom. keroog ba nga xamante ni nii boole nañ ma sëñ Fallou Ndiaye ma yóbbu ko fa sañ Fallou Ndiaye xam ma yóbbu ko fa ba mu commencé jël garab yi ba mu jëlee ñaari ñaq laay dem benn bis jaay ba wàcce rek xale doomu baayam bi kuñ naan awa jiite ni ma mu ne ma Ibra dox na. ma xool ko ma ni déedéet lii moom mënta nekk lii moom mënta nekk moom sama ba dëgg moom ko man mën a wan mu ne ñoo ket fi mu toog daal di dox dox ñaay tànkam daal di ñëw fekk ñu bëgg a tabaski fekk na ay yéreem yu bari yoo xamante yi nii mu ngi ko teg mënumaa fexe ba solo ko ndax ñàkk dox gi bu ñàkk dox ak ëpp gi mu ko ëpp ba mu commencé dox ci la commencé nag yaram bi di ñëw muy am yaram. ndox boo xam ne nag ñun ñëpp la bett sax. dëkk bi koo dégg mu naan bàyyi ba Jóob dox na même sax suñu mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo nekkul ci dëkk bi sax dañ doon woote laajte naan dégg naa bàyyi ba Jóob dox na bàyyi ba Jóob dox na loolu yëpp ku yoo xam ne ah wax dëgg yàlla mi ngi nii dox de waa fa ko yóbboon mën nañ suñ Fallou Ndiaye raxma mii de ci laa ko yóbbu waaye day yàlla suñ borom de jubale nañ wax dëgg yàlla dox na de la moom liñ fa njëkkee woon hmm. kon kon kon kon dañu ñàkk liñ ñàkk lépp ah! te man fi ñu fi ñu jaar ci weexal ci ordonnance bu fekkonte ni njëkk nañ ca moom sëñ Fallou jaarax na kon lu ñuy ñàkk duñ ko ñàkk. ñoom ñëpp kilifa yi génn waxal ko seen bopp ba ci borom dëkk ba di sëñ fàllu di kilifa gu mag a mag di chef de village ba génn wax seede ngir dimbali ñu mel ni ñoom kon nag niñ ko waxee rek sëñ fàllu moom sëñ fàllum àdduna la sëñ Fallou Rahman sëñ fàllum képp ku bëgg a jariñ ci moom la rek. njiite Ndiassane gii maay borom dëkk bi maay sëñ Fallou def nañu gis. lu wér ndax lu seer su may dàgg ku def ñu gis ñu wax ko te def nañu gis ñun def na fi ay pro yu wér ndax li mën a wax ci boppam mooy ku mun mënu dox mu ñaanal ko mu dox commencé di wax fii lañ ko defee Njaasaan kër Maam Moor Jiti gii dooñu Maam Moor Jiti ak Xadi gii ma nga ngi dox bi ne boo génnee gis ko ci penc mi muy dox ci am na ay at mënul dox loolu firnde la fi man mii itam di ba mu dëkk bi itam firnde la ci ndax man wéy di def naa fu ne jaar naa fa hôpital bu ne dem naa fa dem naa hôpitalu Tivaouane Dabax dem naa hôpitalu Sonal dem naa Saint-Louis yooyu yëpp dem naa fa waaye ma demee ci moom ci laa wér waaw laa wax bu baax fi mu bi ngay dagg ci kër sëñ Fallou Rahman ticket boobu noonu dina nekk ci yow atum lëmm soo xam ne saa soo demee ba bëgg a fajuwaat te tombee kër gi feesul ba yow boo ñëwee doo am foo toog wala xajoo ci nombre bi war a dugg soo ñëwee kenn du la ko laaj soo wootee rek dañ lay bàyyi ko dugg ci ticket boobu bu at mi jeexee nag su la neexee nga renouveler ko ticket boobu nag boo ñëwee ba yegsi ci biir muy consultation bi faj gi ak ticket bi bokkuñu laalewuñ dara waaye faj gi nag ay garab la yoo xam ne dañ la koy bindal nga war koo jënd fii ci biir kër gi xam ne garab yi nga war a fajoo nangam lay jar tawat gu nekk daa am nuñ koy traité feebar sàngam boo ñëwee ne feebar bi la am dañ naan la feebar bi lii mooy traitement feebar bi lii mooy traitement feebar bi lii mooy traitement feebar yi nag doomu aadama yi bokkuñu ay feebar tolloowuñu doole bokkuñu ay at bokkuñu ni si ni di dalee am ticket yi nag dafa am ñaari façon am na urgence am na boo xam ne simple la urgence bi nag nit ñi ñoo ko sàkku ndax am na ñoo xam ne seeni feebar mënta xaar am na ñoo xam ne tamit seeni liggéey moo leen ko maylu te bu ñu toppee rang bi mun nañoo toog ay at duñ ma gis ñooñu ñooy ñaan ñu defal leen ay ticket urgence yoo xam ne lu mu xat-xat moom ci ñuy njëkk dugg ngay bokk waaye urgence boobu tamit soo ko daggee bo fi ñëwee fekk yeneen urgence melni mel ñoom da ngay ni topanté rek waye ñoom mom ak lu mëna am mom ñoy ñoy ñëk dugg ndax ku ne xamna ni ne urgence moom bokkut kuy mëna xaar ndax lu urgence urgence la. señ bi dafa wax ñaari baat yu ma leen bëgg a té te la wolof nak farul limil batin, tanka bi métteeg ak mbiggam bi ak biram bu metti lay xam ku ko faj mu ne mën na faj mom baatin lay faje dama leen di leeral lu woor man waxuma pour jaay kenn kuy mourid ku ne bo may da ma gis tuba TV wala Lamp Fall liggéey naa sëñ Tuubaa bu yàgg yàgg yàgg sama xarit bii dafa ma wan kart bi ne ma xoolal urgent ak niñ fi yàggee mu génn moom dégguñu yëguñu daan ne boo gisee urgent di am mooy nit day feebar wala am rendez wu loolu la tontu bi ma ne ko ñun nga doon tontu yow nag doo faje saa yit ndaga da ngay déglu baatin dama leen bëgg wax ne boo leen koy jëw jëw leen ko nag loo wax na ko dégg fii waaye ay ay weer nga ba mën at xanaa su may julli damay taxaw damay toog ñëpp gis nañ ko ma duggee ci kër gi bi ma xale bi na yaay jiite dawal na ñaari rakk tisbaar taxaw sëlmal julli ñeenti rakk yu ma def addiya du lëgg tàkkusaan jot ma dawal ñaari rakk julli ñeent jiite leen ñeenti rakk ma ne ko bi ma duggee am na sa kër gi luy faj ci xaw ci xaw ma ko te man du ma mboccooru neen man ci saayir man xaw ma ko woon benn bis laa xëy maanaam ñu ngi ziar benn bis laa xëy sama mag bu jën mu ñu ami kolle li mu ne ma kaay ma yónni la ci sëñ Fallou moom nag la ci sëñ Fallou la ma recevoir ma recevoir rek laa lay wax ni ma jël jox ma man ma ubbeeku parce que sama doom bi laa waroon opéré ko waree opéré laa ma woon problème testicule mu war koo opéré li ma gën a yéem dama faa àndat ak sama mag bi moom en chair et en os mu amee tension amee jabet ñëw pour laal sëñ bi defal ko ay ñaan bi ma ñëwee mi ngi am ñu ngi ànd ak doomam doomam mooy directeur des études bi moom sëñ bi gisul sax laa lay wax nii gisul gisul gisul sax laa lay Ablaye Gaye parce que ñaar mooy dugg te ñun ñett la ñu woon Ablaye nekk ci biti ma ñëw ne ko sëñ bi ma ne ko waa sëñ bi sama jaral laa àndal mu ne ma kooku Ablaye Gaye la tudd Amath Diallo moo ko jaay xar tabaski cent soixante-dix mille laa lay wax nii man ma xaw a yéemu mu ne ma yow looy wax yow xar ak béy nga jënd ci tabaski bi Lol dal dal dal may danel parce que moom mosul gis Ablaye gay te man ben yon bobu la fa dem moo fi ñëwaatee deuxième fois mo xol lol mo tax ma xamne ne ne kii daa yor dimbalu yàlla yor lo xamne la lay wax ni limak ñu di dimbali jamm mom la yor. ah gor gogu di Ablaye sen man may taw mam sen di dom ci gor gog nga xamanteni mo ñewon ci seigne Fallou Rahman Don ko wax ni ko pour kañe yi ko sonaloon këram du ay nax du ay tiaxan parce que ko fofu nonu biñ fay dekk nonu kër yu nekk fa won léegi nag bi lotissement bi ñëwee xàll foofu tali def foofu ay yoon ci la kaña yi nag wëlbatiku rek nekk biir këram gi sonal ko huit huit huit huit di ko yàqal guddi ak bëccëg. ñu doon songoo ci kër gi di xeex ba boo yeewoo kër gi yépp da fay gis sax ay deret ku ne nag dem na fa pour kaña yi abal ko kër gi waaye dara dara dara ba ni mu déggee sëñ Fallou Rahman mii ci la ñëwee ci moom kiy wax ak ay nee na ma nag mu ne nag kiy wax ak ay gaynde nag. xanaa nag bu demee diis ko soxlaam ci kañe yi ko sonal biir këram gii xanaa dinañ ko abal ki la doog a ñëw fii ci sëñ bi sëñ bi jëflanteek moom li muy jëflanteek moom mu tàggoog kañe yi ko doon sonal biir këram ndox rek la ko sëñ bi jox ndox rek la ko jox mu wis ko ci kër gi yépp ba mu daj gisatul kañe de kañe moom amatu fa moom indi naa fii tam sama doom waaw moom itam keroog bi ma ko fii indi dem na ba mënta wax daa jàngi école rek wàcc daal xaw ma am lu mu taseel mënatu la wax fu ne yóbbu naa ko fa fu ne yóbbu naa ko fa nag keroog bu ma déggee daal sama première dégg sëñ Fallou si télé bi muy wax laa ko indi bi ma ko indee daal mu am lu mu ko jox si kaas jox ko mu naan jox ko ay garab mu dem premier rendez-vous deuxième rendez bi ma ñëwee daal mu ngi wax normal mu ngi delluwaat si activité day jàng franco arabe lay jànge grâce à sëñ Fallou Rahman ndax dëgg yàlla ndax fu ne yóbbu tiitoon na si lol itam nak nak am jank bo xamne dem ba mata sey dem ba ñu teye mu gi teye mënatu la wax ah mu diko fi même pas deux semaines muy wax normal ku defé ni fajj rek lay def ci mbirum lepp lay yëngu ndax wax deug yalla jigen la nek sama kër di def commerce ma sha allah bu ma ñëw si mom dal bu mu defal ma ay ñaan ma sangu yokkute rek la ci gis jaar bi itam bu mako ko ma sha allah dal yokkute rek la gis ma di koy may ñaan nag xam naa daal li muy def daal moom si baatin la koy defee. sama wàllu commerce it ubbeeku na maa ngi si gis sama bopp. dama daan naan di tox te du man seex laa toxul naanut deful lenn mais la ko daan defloo du nit waaye doomu aadama moo moo moo ko daan yabal may def ndax li nga wax ji waaw guddi la ma daan dikkal moo ma daan jox li ma daan jëfandikoo daaw ma ko liggéey mooy yëg guddi dama yeewu fekk sama nekk xaalis cent mille deux cent mille xaw ma lu ko fa def moo ma daan defloo waaw waaye sëñ Fall moom ma tàggal loolu jox ma li gën nag ci man wax dëgg yàlla maanaam ku bëgg a rëcc ku bëgg a raw rawukaay yi mi ngi ni daal maanaam waaw kër sëñ Fall rawukaay la maanaam ku bëgg a raw la yegg si fi man de mat na moom sëriñ doy na moom sëriñ def na ci man lu sama sëriñ deful ci man maa ngi jégalu ci kàddu yi bak sëñ Tuubaa def na ci man sama sëriñ deful ci man jéemu ko ci man sax waaw sant baax baax par mon Serigne Fall gën a yàlla nag sant sama yaay ji toog nii yëpp lépp mooma sama ndey dafa sonn ci man moo ko jaayante ba ma yegg si fii xet gi bu ma xeeñee fi mu toll damay sonal ku koy def ma laa xam ndax da wax waa ji bëggatuma xam ku koy jëfandikoo ndax da nga waa ji wala koy def yenn yi waaw liggéey waa ci jaamu tarbi sama yaay moo ma ñor daaw ma nelaw guddi ku baax daaw ma lekk ba suura ah. maa ngi nelaw ba maa ngi lekk ba suur grâce a sëñ Fallou Faral Ndiaye sama yaay ma ngi toog mi ci man waaw suñ faalu daal dañ koy jàpp dóor ñii di mbëkkal ñii di saaga du ne ne du ma nelaw guddi du ma nelaw bëccëg guddi go jot ma jot dama dama jaawale mbub mi ak dàll yi duma xam sax lu may mel ndax naxaru àdduna ndax moom te ñuy ñaari seex seen baay gaañu wacc maag ñoom bu ñoom bu ñuy yaruma leen dama leen seen baay bu mbokkoon léegi baay moo leen yaroon man bu ma ko leen yaroon fii lii du am wante xam naa lii mu nekk du neen dem naa fu ne Kaba Njaareem Ceneba Touba Bambay fi Laañaar gisuma fu pël yi nag pël yi may nax foofu ak ñeneen ak ñeneen kenn xamul nu mu toll nii léegi laa daan def moom mu taxawalaa kaana ndax moom mi parce que su baaxee baaxal na su bonee bonal ma ndax ay seex lañu seen bàyyi dundul maa leen maa leen yore woon ma sonn sonn sonn sonn bi mu jëyee fii damay nelaw ba yandor tous ni bisu na ci biir keur ku setan soxna si doon wax legi ak doomam nga xol ma nga xamne ñun ñepp ben lañu sa xol dina toy tax jabot du nek jabot la so sañon sa dom bu gënul kenn bu ko kenn gën limu fajal domam ji man it la fajee sama dom ji sama dom da daan naan sangara di tox yamba waye tay ma ngi sant yalla ak yonantu bak cheikh na di sant seigne Rahman. rahman fa am fukki at ak juróom juróom benn mu commencé naan abib tayeur la won te wér la woon mu xëy suba rek jublu ci loolu boobu ba léegi tey am na fanweeri at ak ñett xanaa sama sama dëkkaale cité millionnaire yëpp xamal nañ ma fu nekk laa doon dem amul fu ma dul dem dem naa Fuuta dem naa Caajaay dem naa Bayaax Grand Yoff nag fu ñu ma tegtal dem naa fa yàlla seede na ne lu ma jox Habib day yokk muy gën a naan rek di gën a naan rek ma ko gën indee ci kër Sëriñ Fàllu Rahmaan mu jox ko garab benn bés bi la tàggalikoog naan sàngara ba suñ jonne yàlla tey li yóbbu baayam bàyyiwuma fi te bëgguma bàyyi ni Habib mu des ak ak i mbokkam lii laa doon ñaan yàlla ñu fonk suñuy waajuru jigéen te xam ne kat ñoom ba ñu nekk tu tànk yërmande ga ñu amoon ci ñun nañu am yërmande gu ko raw ci ñoom bu ñu demee ba nekk mag lu ñu mën ci teral waajur yi di ko def ndax kuy teral say waajur foo dem doo ñëpp di lañ la teral ngir jëmmi waajur yooyu noonu fonk suñu waajur bu baax a baax a baax a baax suñu borom dane ginnaaw boo toppee yàlla ba noppi nanga teg nanga ci teg say waajur ndax am bayre baax na lool waaye am bayre li muy baax baax am bayre moo ko gën boo fexee ba sa bayre bég ci yow ba wan la ay bëñam wane mbégteem loolu dara gënu ko te xam ne kat gën gi mbindéef dane daawu mardaakum bi sa sadaxaati faj leen seeni feebar ci ay sarax kon ndekete am na sarax yoo xam ne képp mooy faj feebar yoo xam ne tën ku ne kon yàlla lu mu def am na lu ko waral te gën gi mindeef ay waxam du deñ kon nañuy fonk sarax kuy saraxe nag ngay saraxe lu baax waaye bul saraxe loo xam ne da dem ba yaakaar ne yow kat yitte woo ko nga door koo saraxe na ngay saraxe te yàlla rek tax doomu aadama moom lépp lu mu def ngir yàlla faw yàlla fay ko am na ñoo xam ne dañuy am jafe-jafe tukki amoon ay jafe àdduna ñu bari nekk ci ay coono ñu ñaanal leen rek te yàlla tax yàlla dimbal leen ba tey ñu tukki nekk bitim réew nekk ci yeneen i mbir loolu ñu ngi koy sante suñu borom ndax du suñu njàmbaar yàlla mi def ci ñun kat. aajo bu waaye am bu ko ñaanee rek ci suñu barke sax suñu borom sottal ko moo def ci ñun tamit yàlla barkeel macha allah ba doomu aadama yi bu ñu amee aajo bu ñu ñëwee ñu ñaan leen ñi ci ëpp suñu borom saafara seeni mbir yàlla na ko yàlla saxal te mu yàgg lool te xam ne lépp suñu boroom la ñun ay jaam la rek dañuy sabablu waaye yàllaay dogal. Gaynab Jaame ñëwoon fii si sëñ Fallou Rahman bi si sëñ Fallou Rahman sama rakk dafa bëggoon a dem États-Unis bëgg a jël yoonu suuf si bi mu bi ma ko waxee ah, yow na suuf wuro de mune ma bàyyi rek ma dem mané ko way xaaral man bima ma mako ko Rahma ko ko mune ma ah mune wa mune dana baax sama xel jaxasoo ma dal di dem si ki may bi mané ko ah lim ma wax dana baax mune wa dana baax mané ah dina baax si sama xel ba yegg sama rak bi ne ma jeyna ba ki nitu yalla la sagu sëñ touba la ci ko suuf de ki nitu yalla la bu la xé dana baare dana baax dalalal sa xel ndekete yoon bi ndox la amna na sa ku jigen ku fa dess léegi bi mu demee man ma jaaxle ma ñëwaat mu ne ma dana baax joxaat ma beneen affaire ne ma dana baax de man de dana baax bi ndekete dana baax bi day baax macha allah sama rakk fi mu jaar ku jaar yoonu suuf ki si ñëpp ma ne bi mu yeggee ne ma kii danger la jaaroon ne ma jenn foofu ña fay des ñoo ëpp. bi mu yeggee si biir camp ba fekk na fa ay nit ñu ko fa njëkk fuuf ay weer weer ñu ngi fa toog waaye moom daa yegg rek macha allah ba ñu dégganteek moom. bu motee semaine walla ñaari semaine si lay yem ñu jël si ko yóbbu ko xam nga ku ne xam na ne Amérique pour nga am dugg fa am liggéey yombul waaye moom daa dem sa ëllëg sa rek ñu yóbbu ko mu liggéey liggéey fa ay fan jógewaat foofu ñu yóbbaat ko feneen fañ ko yóbbu macha allah moo ngi foofu di lu weer bi dee na mu yónnee suñu suñu xel gën a dal. man maay sëtu sëñ Saakaar sëñ Saakaar moo jur sama baay. mosuma toog ci sëriñ guleet ci sëñ Fall Rahman gisuma ku mel xam naa ne bu ma bu ma dikkee ne ko sama diggay metti noo digg sama yax yi muy rek keke rek la sama yax sama yax naa ni ma yéegi yi ma gis naa ne ma mën a yéegi escalier te naana guma ab garab dafa guma dara dafa nekk ci njaareem saa yi ma may jàqare woo sëñ Fallou Rahman daal di ma koy am daal di saafaraw lu ma jaaxle bu ma woo sëñ Fallou Rahman juróom-ñaari yoon day daal di saafaraw kon nga xam ne sëñ Fallou Rahman borom baati te maa di ko soo gis tey tey laa ko gis boo ko séenee li jóge ci man mënuma leen ne nii la ndax bëgg gu bëgg gu ma ko bëgg te mësumaa gëm ab sëriñ sama sët bi loxo bi dafa doon dafa nee woon ma ne ko xaaral ma ñaan ñaari yoon tufli ca loxo ba ba mu dafa daal di bënd ba fa la yem sama sët bii dafa wànneen wànneen bi sonal ko lool man ne ko xaaral ma ñaar ci barkeb sëñ Fallou Rahman Ndiaye boo ko ñaaree ci barkeb sëñ Fallou Rahman juróom ñaari yoon bu mu xëyee mu ne ma yaay wànneen bi wér na sama sët benn bi si ma loolu ma dugg ca mu mu mu tane ma ne ko xaaral ma ñaar ci sama sëriñ bi kon nag saa yi ma jàqee ñaan ci sëñ Fallou Rahman yàlla daf ma cay dimbale te yàlla da koy da koy antul kon sëñ Fallou Rahman borom baat te man ku ne xam ne ne man kenn mënumaa tax lu wax lu dëgg njaarim gépp a ko soxla sëñ Fallou noo ngi ñaan ci kàttanal yàlla doole yonent bi barke sëriñ Touba Mbacke nga ñëw njaarim ndax soxla nan la bëgg nañ la njaarim lool njaay sàkku gi ñuy sàkku ñu ñëw njaareem ak cofeel gi njaareem am ci ñun nañ xam ne cofeel gu waa njaareem am ci ñun gi am ñoo ko raw ñu ciy joxe rek ndeysaan di sant baax ku ci mel ne Serigne Modou Kumba Cuun mi di nit ku baax di xalifa maamam nekk ca njaareem maamam bokkoon ci seexi Serigne Touba yi muy xalifaam di kilifa am woyof ak ndimbal fas yenee dimbali jaam mi kat daal di génn ndeysaan wax lu am solo yàgg a sàkku nag. suñu teewaayu njaareem moo ku mel ne Serigne Cheikh Fall ak mboolem kilifa ya fa nekk di ay kilifa yu mag maga mag ak ña nga xam ne tudduñ ta tur te xam leen bu baax baax waaye xëy na doo mën a matale yàgg sàkku suñu teewaayu njaareem ñu xam ne yàgg nañ di fa teew di ziar barab yi waaye nag ñëw ngir dimbali jamni ndax ku ne xam ne ni doomu soxla nañ ko ndax ñañ fa faj ken xamul ni mu toll ndax bis bu nekk ndeysaan ku ñu gis naan ma wala yaa faj sama wajur yaa wéral sama wajur loolu nekk lu rëy ci ñun wala man yaa ma lol doon dam lu reuy ndax doom aadama kat bo de def dara dem ba doomu aadama ma sha allah di ci gis sen bop di ci sante Yalla te lepp génnul l'islam def na ni fa la Amin. yam bako defé Amin. ñu ñew fofu tombek ñu amone fa bis bu fa dajé won ñu daal di ñewale ci bis ba fa xewon ñewale fa ro gis nañ ciofel gi nit ñi am ci ñun Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. bismillah jégal jégal na ko. kon maa ngi ñaare maa ngi ñaare waaw. waay sëñ Fallou Rahman ay waay sëñ Fallou Rahman waay. yàlla ñii di jooy ñii topp suñu jëmm ji fu ne waaye yor fa ndox naan ma kat ñaanal ma ñii di jóge ci ay dëkk yëg ko di di jóge ci ay goxi goxi gox ngir gis suñu jëmm ju xeebu ji te jàpp naa ne man ku ma gis yaay sama sang jàpp naa ne képp ku ma gis yaay sama sëriñ jàpp naa ne képp ku ma gis yaa ma gën ndax man li ma jàpp mooy maay jàmm bi gën a xeebu ci Sénégal maay ki gën a ñàkk solo waaye yàlla def ndox moomu nga xam ne xawma sax doomu aadama yi ndeysaan kan moo leen jox sa secret bi ci ndox mi ndax ndox mi faj na lu ne ndox mi xool na ay silmaxa faj na tawat bu nekk doomu aadama yi fu ne la ñuy jógee te mosuma ci ne kenn kat boo ñëw indaaleen ndox waaye kuy ñëw day mel ne suñu borom moo lay branché ne gàddul sam ndox boo demee mu ñaanal la ca moo tax sañuñu cee xeeb kenn gone gu ndaw sax wala ku mën a doon su tourné woon nañu ñaanal dinañ ko ñaanal ci ndox moomu te yàlla rek tax ndax loolu mooy suñu warteef ndax li ñu yàlla jox dañ ko war a séddoo ak jaam ñi muy njariñ loo xam ne yéene nañ ko ñëpp. man bu ma sax ñaare wala képp koo xam ne rek feebar na wala dara rek boo mënee àgg ba ci ci sëñ Fallou Rahman de suñu borom yar na ko defar na ko su ko defar la kuñ tër biiram ca loolu li may wax lu ma xam la lii nga xam ne sax muy xeeti ñaan wala dara suñ borom defal na mu ci ak jagle mu ci xeeti taxawaay lépp lu mën a doon li ma ko defal ci ñu ëpp na ñeent ki kenn ku nekk mu nga njabootam ci xasit yi suñ coy rek moo ñor leneen ñoruma kon nag lu ñuy wax ci sëñ Pallou rek ci yàlla tax moo tax ñuy wax te kon nag loolu wax dëgg yàlla ak jubóom képp nag moo ko ko may ak sàll la lu muy def ci garab yi li muy wax it ne garab yi da koy misa si si daal lu am la ndax it boo ñëw rek wax sa jàngoro mu jox la ci garab da nga gis résultat ci yàlla tax rek man na gis naa ci résultat sama yàpp yaram laa ko doon faj yooyu yëpp xam nga moom kilifa mu am ne nee ni noo xam ne duko ko wax luy jaar ci télé wala dara way dal yeug nañ ci dal ak soppeeku bu wér ci sans borom yalla def na ci mom batine bu wér ku bañ lolo am ku nugul lolo mo am ku melni seigne fall ñay ci fa télé mom yomb la gis man de musuma ko gis ndax man am na fu ma newon nak ma newoon rek ko xam buma ma nak ba tax may jaral ma may taxaw di wax mom am na lu ma fa gis maa ngi tudd Abdou Sène dëkk Touba dama yoroon jàngoro ju xawoon a doy waar ñëwoon ci sëñ Fallou Ndiaye li may seede na dama koy seede te yàlla rek tax ndax nit ki booy wax da ngay wax sa diggante ak yàlla néew kattan laa yoroon kilifa lu mel ni boo ko yoree jërul nëbb boo ko nëbbee rek mu gaañ dafa metti trop ci nit nga soxla dara nekk kilifa war a sëy mënoo sëy takki soxna mënoo sëy dafay doy waar avant mooy gisanteek moom xawoon na ma sonal lool waye nak mënuma won sax sey sey bu doy bu normal waye bama ma gisee ak ba léegi dal bama ma garab yi mo jëfëndiko ko ba léegi dal yalla def na ci sutura dal wax dëgg yalla ma ngi sant bu baax ma ngi sant yalla bu baax ma ngi sey bu baax ba alhamdullah ma ngi sant bu baax wa alhamdullah soxna ci kontaan trop trop kontaan trop alhamdullah man la man la Thiésine Fall Njaareem laa dëkk euh, ak Cheikh ibrahim Fall dama amone tawat bo xamé ni ke, yalla ma ko mu yag lool ci man depuis en fait nek euh xalé bu ndaw jaar na nak fu nek ci médecin yu bëree bëri bëri bëri bëri wayé mun ñu mun ñu ko woon a fay ci xaliss bu bari ba li ci muju sax ñaari million fay ko ci waaye mun am tan demon ya, na nak ba ba foog ni man métti du du en fait takul ko ci man ndax bis bu yalla sak dama dal yëg metti man sama bir yar febar bi sama colonne vertébrale la doon jàpp euh, da doon dox bu ko nexé man na japp sama hanche dama daan xey sax du ma mën dox daan na faral di jël bant di ci jappaliko ngir mën a jug mën a dox naan naa en fait euh, façon médicament bu ne médecins yi ñoom ay anti inflammatoire rek lañ lay jox mais ñoom seen bopp xamal mañ nañu ma que mun ñu ko faj te daan naa toog at at ay ati at musuma nelaw normalement parce que ku nekk xam nga ni boo amee ay douleur yoo xamee ni que day metti yow sa colonne vertébrale boo tëddee mu nelaw demoon naa ba ñàkk yaakaar ci man moom jàppoon naa ni métti moom du mës a tàkkali ko man mais bi ma commencé jël médicament euh, seen fàllu yi une semaine laa def une semaine di yëg ci sama bopp loo xam ne que mosuma ko yëg su ma tëddee damay nelaw bu baax maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax baax bangi sant yalla bu baax te gannaaw yalla sëñ fallu Rahman Ndiaye moo ma faj. maa ngi tuddu Cheikh Fall dekk fi kër Yéli di setu yeli Manelit mo jur sama yaay si nyaarem da quartier kër Yéli si jurba fofu la dekk tali bi jëm directement ci école kër Yéli fii laa dëkk ñëpp xam nañ ma fii feebar naa feebar bu yàgg parce que sama jabit bi 2002 la. gannaaw yàlla sëriñ Fallou Rahman moo ma si dimbali ma amoon arthrose bu metti it man ancien militaire la parcours du combattant yeeg tëb yeeg wàcc yeeg yooyu dama dama dema dema dama dem ba yey yaram yi daal yax yi ma mënatuma daal ma sëgg yor yàpp waaw mënu am am nay temps dañ ma doon yëkkati mënumaa jóg mënumaa taxaw mënumaa toog damay tëdd rek mais damaa tëdd kenn waxuma sëñ Fallou moom yàlla def na yàlla ma booleeg moom directement kenn waxuma ko dama tedd sama lal yew julli ba pare da 8h ma tal télé bi ma yem ci Seigne Fallou Rahman ñi wax di wax ma jël sama téléphone ci kaw lal bi ma dali di di yalla def directement ñu ne ma kañ nga bëgg ñew ma man kay bu mu mëne ñew suba suba suba ñu ne ma kon suba bind nañ la 9 h ma dali xey xëy dem bi ma demee bi ma yeggee billahi nek nek liñ ubbi buntu bi ma jakarlo moom bànneex boobu mu yëg kero bi mu gisee kaaba gi lo wallahi taala la mu yëg ba ma ne jak ki ma loolu dama ne ki moom yalla momu bolé boolee sama xol bi sedd kuy ma dal dugg ci bir mu lewet lol waxtaan ak mu nit lol sama manam yegutuma dara ndax dal moom nim lay recevoir rek lay accueillir sa xol fay sedd da ngay fex non la fex mu wax ma ma ñu waxtaan ma wax ko mu ne ma dara jàmm rek ngay am yow mom fi ngay ma sha allah jàmm rek ngay am sa ëlëk sa billaahi wallahi ta'ala si la tek sama kaan xar yi nga gis nii buntu kër dama ñew fek xar ba diko rek far yat ba dam ma dal dox dox normal boba ak legi yor yoratuma yat kuma ma xam sama mbokk yek jambour yi tay rek bari nañ ñëw di ma seet si ne dañoo bëgg a gis sëñ Fallou Rahman léegi dem nañ ba def na ma léegi si kër gi nga bokk waa jaare bi yi ma takk moom ma ko jox waaw nomb gii nekk fii it moo ma ko jox nee naa ko loo am bëgg naa ndax man bi ma ko gisee damaa yëg loo xam ne si sama xol laa ko yëg sama lépp laa ko dégg waaw business bi li muy toog lépp mais bi ma ko xamee léegi dëgg-dëgg yàlla sant naa bu baax a baax a baax a baax tiis woo am soxla woo am jàngoro joo am naqar boo am waxal sëñ Fallou Rahman lépp lay saafara mbirum yàlla la nag waaw yàlla ñu ko ëndit xéwal la. sëñ am sëñ Fallou Rahman Ndiaye nag dañoo bu ñëwee Jurbel bu ñëwee Jurbel bu daal dañ ko son lool mu ko defal waa kees mu defal ko waa Jurbel. dama fee ñëwoon nag indi fi sama tawat bi sonal ko lool bi ma koy indi mënul toog. mënul mënul toog mënul jógal boppam. doole bi temps yoo xam ne yii mënumaa toog mënumaa tëdd moo may wuuf di ma seqal may lekk waaye ba ma ñëwee ci seen Mouhamadou Rahmane Ndiaye ba ba ñëw jël garab yi garab yaa ngi nii jaxaguñu daa mën a toog mën a jógal saa bopp mën a lekkal saa bopp mën a doxaltu naa ko bu baax nag waaye sant naa yàlla bu baax baax a baax a baax a baax. ndax lii moom man mënu woon ndax mënu ma la jógal sama bopp mënu ma la toogal sama ñu tëral ma bala maa lekk ñu saxal ma te loolu yëpp yàlla saafara na ko. jaar ma fu metti hôpital bu ne dem na fa def na façon analise bu ne façon rajo bu ne mënuñoo trouver ja jàngoroom waaye ci sëriñ Fallou Rahman Ndiaye ci la gisee tanam ci la gisee tawféex. waaw garab yaa ngi nii ordonnance yaa ngi nii fu ne jaar ma fa daal waaye daal bi mu ñëwee ci sëriñ Fallou Rahman Ndiaye daal am na tan bu baax ñun waa Jurbel kontaan nañ ci moom ak képp ko ànd ak sëriñ Fallou Rahman Ndiaye di ko ñaanal wër ak gudd fan ak mujj gu rafet. salaamaaleykum yéen waa Sénégal man la Baye Malick Tine keroog bi ma feebaree daal te demoon Dantec ak Fann ci problème noy bi. ma wëlbati ko ba doon ci sëñ Fallou Rahman daal bu fat bi sax moom dañ na wax dëgg yàlla fàtt bi moom bu ma ma sàndal moom du ma may ma tëdd sax duma ko mën ndax xam nga bu fekkee yaa ngi nooyee gémmiñ moom naan sax du la may nga mën a naan ndox hôpitalu njaaram bi jaar naa dem naa ci janatu dem naa daan teg dem naa Fann dem naa clinique golf dem naa ci dem naa ci dem naa ci bi ñëw jam ñaajo ci fi ma dem daal bari na mais gisuma ci benn tànn ci ci sëñ Fallou Rahman ci la amé tane bi ay wax dëgg yalla dal depuis nga jóge fofu ak léegi déwuma ci keneen nit nak ay dal ma ngi noy normal normal normal bu wal duma ñimé ñimee ba ci dañ danay muuru kris dama daan daan tusu tusu nak ma daan sama tank bi musna daanu ndiaré dama daan tek dara du ma ko gis seigne Fallou fi ma jëlé xamna ko to gëm na ko ndax loy def to gëmoo ko jarul ngay dem man kay sing fallu dal, dama ko sant sëñ bi moma fajj da di gis nga beut gis gi ma wara gisati du du soti ndax beut yi limu mu yen woon dafa upp boy dom di dem di dem bo am juróom-ñaar fiat sa ndox day ko am du non, am na ño xamne munu ño gis limay gis man may dem sama bop marché la sama bop bu ma amee ay yóbbante may dem ca ca ba ma duggé sama néeg guddigi gi gëna gis waaw guddi gi laay gën a gis. bala maa ñëw sëñ Fall dem naa ci hôpital jox nañ ma garab mais dara li ma ci gën a yéem nag ndox la ma jox may sël moom macha allah fi mu ne yëgatuma dara macha allah. bët bi demoon na ba yàqu ba di génn ba per bi presque boo làmbee di ko di ko bëgg a jàpp fi mu ne nag macha allah sant naa yàlla bu baax faj na ba maa ngi nii alhamdulilah di sant sëñ Fall di ko ñaanal yàlla ñu yàgg fi te wér. man mag laa. juróom ñaar fukki at ku ca tolloo juróom xam nga ne sa ndoxum ba jeex na dem ma ci docteur dem ma ci fenn nag xooloo nay silmaxa man mii daanaka ca silmaxa ya laa doonoon gisuma sama waa kër li ma gis ci moom du gisu ko ci kenn wax dëgg yàlla man saa bopp nag laa xam ndax li ma gis li ma gis gisuma koo gis léegi mën na maa ñëw puso bi dama koy nas léegi bët bi day xool na ma neex te du jooy defe naa nag bari pexe moom eggul ci xooloo silmaxa nit moom xanaa yàlla lu mu la may rek waaye munoo def def pexe ba xooloo silmaxa ci ay pexe loolu defe naa ni kenn yeggul ci loolu kon nag ñu ngi koy sante yàlla mi ñu jox secret boobu te paasewul kat ndox mi ñuy ñaan di ci tifli leen ko jox ñuy sëlmu yàlla di saafara seeni bët muy leer am ci ñoo xam ne tamit dañ cay ay garab ndax xeeti feebaru bët yi dañoo bari lool waaye nag nañ xam ne lu mel ni gulukum ñu koy wax tension oculaire feebar bu compliqué la bu jafé la bu nakaré fajj la waye lepp rek duñu tass yaakaaru kenn ndax ku ñew yaakaar gi ñu am ci ñun dinañ leen ñaanal. jabet bi ma amoon nag moom dëgg yàlla jabet bu graw sala laa chaque jour suma sucre 5 la daan doon 4 ay 2 ak 3 yi mu suma ko am dama daan lek sumay may sumay lek sumay ndek damay pikiiru sumay añ damay pikiiru sumay ré damay pikiiru ñemewu moo a lek bu dem ba sama yaram bi yépp yàqu ndax ay pikiir dem na dema dem ba sama waaka sa dañu génn seen xel ci man kenn xamatul woon lu may nuroo suukar bi yàq ma yaxet hôpital bi may siibur tey jii marin bi ñëpp a ma xàmmee médecin yi ñëpp a ma xàmmee te ba muy soog a ibbi ba léegi man ak ñoom heure ma ñëwee ñu dugal ma urgent dinaa fa am semaine wala ma am fa 10 jours mais depuis ma commencé jëflante ak sëñ Fall Rahman ba léegi maa ngi sant yàlla bu baax. ba ma demee xool sama suukar ñu xoolal ma ndaw si ma xoolee daa siggi xool ma ni ma yow lan ngay jëfandikoo fi mu toll nii man ko man de léegi sëñ Fall Rahman Ndiaye moo may jox ay garab. dapim pim pikir ma utiliser sax luma 6 mois gi ni pikiru ma jëluma ben garab lu garab sëñ fa rahman jaay mu ma kii de bu ko bayyi ndax ki mom jëri ñega ca bu ko bayyi bene jour bi ma ne xaaral ma tànte waat fekk jour ba ma demee aw ma sax un bene jour ma tànte waat ne tay damay jël sucre bu bëri ndax suma dé ma xol ki bi dina am du dem ndax dina yéeg wala du yek sucre bi ma dem jël sucre bari dem hôpital tam xolaat sucre bi ñu ne ma carrément sucre bi tam amo sax un Kokra ne ma sëñ Fa Rahman Ndiaye mii bu ko bàyyi bu ko bàyyi ndax kii ay garabam moom moo gën ci yow ndax léew lii soo ko am daawoon ñeme jàkkaarloo ak nit sax di wax ak moom ndax xeetu gémmiñ gu foor wallahi te léegi damay jàkkaarloog nit di wax fu ma neexee li ma gënoon a métti sama àdduna ci la bokkoon loolu damaa mooy xetu gémmiñ gi moo bi alen damaa naqari woon damaa naqari woon fu ne dugg naa fa fu ne duggul mu nekkoon nag feebar boo xamante ne ñeme woo maanaam du ko jàmbat danga koy jooy ci sa biir xol waaye tey jooyu xol boobu wax dëgg yàlla sëñ Faaraxmaan Njaay dundal na ma sama naqar ba mu set wicc ci loolu di ko ñaanal gudd fa ak wér nañu xam ne suñu borom rek mooy aji wéral gi nañu xam ne tamit yàlla rek mooy wéral yàlla rek mooy faat waaye du feebar mooy faat ndax hôpital boo dem di nga fa fekk feebar boo xam ne moo fa yóbbu nit barsàq fekk fa feebar boo xam ne ba daloon nit ka dem barsàq moo dalaat nit muy génn nga dajeek moom ci biti muy jël oto di ñibbi këram kon nag feebar bu wéral bu nit am rek wér nit am na ko faatu dañ xam ne nit ki taxaw naan mankat am naa juróom fukki at wala 60 ans wala am naa juróom-ñaar fukki at wala am naa vingt ans loolu amu ko da koo ñàkk ndax dund na ko ba pare li nga am mooy li nga téye sa loxo li passé woon 2022 mënuñoo fexe ba mu ñëwaat 2023 dafa am ku ñëw ci man ne ma sëriñ bi damaa bëgg nga ñaanal ma kat ndax tey la sama bisub anniversaire ma ne ko waa ginnaaw bu ma nee la joyeux anniversaire ba pare naal wax lan mooy anniversaire ma ne ko anniversaire mooy anniversaire jël nga benn un an diggante deux mille vingt deux ba deux mille vingt trois at ba nga weer wa nga juddu woon bi mu dellu si waatee jël nga atum lëmm boo xam ne versé nga ko ci bàmmeel jeex na mënatoo koo dund. ne ko am na année boo xam ne nag bu ñëwee yow mii lay jël sa jëmm versé ko ci bàmmeel ñu suul la maasaale la bu fekkoon nag versé woon fa lu baax loo xam ne bu la ko yàlla joxee nga mën caa nekk ci ay xéewal kon xamal ne loo amoon perte nga ko kon képp kuy def sa anniversaire na ngay fàttaliku ne yaa ngi sant de waaye defal calcul li nga def ci at mi ndax lu baax la ndax versé nga benn un moom ci bàmmeel boo xam ne mënatoo koo dund kon loolu nu ko ñëpp di bàyyi xel te xam ne doomu aadama dee da koy bett exemple ma ciy joxe mooy dangay gis ku am ay 1000 hectares cinq cent hectares waaye du ñu lëti sa mukk ba génn ay armeel ndax sóoraale wu ñu dee da ngay gis géomètre lu ne la ñuy génn nañ génn place publique génn jàkk génn ay mbedd génn jardin génn lépp waaye lotissé ba génn armeel moom géomètre yi koy def bariwut ndax kat sóoraale wu ñu dee moo tax dee di bett ñu baree bari. dama amoon nopp bu métti bu ma sonaloon trop ba ma nekk xale ba ni ma nekk mag ma dund ak

ci la lu mat ñetti weer ci la deret di jeex tàkk tàkk tàkk gisatuma ko ma amee goitre di sëqat di coroxaan duma mën a nàndox di jeex def bi ma xamee sëñ Fàllu ca la loolu jeexe léegi coroxaanatuma amatuma li mu goitre sama lépp tubaarkàlla damay naan damay lekk li ma bëgg sama yaram dellusiwaat na ma di ko gërëm rek di ko ñaanal di ko sant mag laa ndax jigéen bu làqee soixante ans mag laa jëm juróom-ñaar fukki at kenn jaralu ma fen ndax dé la gëna jëg ko dund bima ma señ sëñ Rahma ci la am jamm nopp ko letul deret guwatr bi dem na sëqatatuma toroxaanatuma bul bi resna man dal ma sha allah dal señ Fallou Rahma da yenn fu yalla baye ba fi ñew dama amone erni sama biir bi falé ma dem hôpital bu ma demee hôpital ñu ma ma ngi bëri wi bi ñu ne ma yow danga am hémorroïde hémorroïde benn mënuma toog hémorroïde ak hernie te ñu ne boo bëggee nag ñu opérer la man yii damaa ragal ñu ne ah danga ragal ñëwal ñu opérer la ñetti fan lay am wala ñeent man ne dama ragal bi dama ragal ñu génnee ma biñ ma génnee docteur bi ne ma ah boo sonnee daa dellu si ma ne waaw bi ma génnee nag ma ñëw ci sëñ Fallou Rahman. ñu ngi dëkk Sacré Cœur 2 mais sama yaay man li muy wax euh, dama koy dëggal ndax hémorroïde bi ak hernie bi sonaloon nañ ko torop ay temps nega daaw heure bi dama ko yóbbu CTO ñu boole ma ak benn euh, professeur ñaaña ma demee ñaaña consulter ko defal ko ay garab defal ko traitement defal ko yëpp mais teewul mu mel ni yëfi dafay gën a yokku ñu jëleeti ci loolu mu daaneelaat ko ñu yóbbu ko sama frère yóbbu ko hôpital principal sama beneen frère boo xam ni mooy directeur bi Mame Thierno Dieng colonel euh, général Mame Thierno moo ko hospitalisé foofu clinique Brévier bu principal defal ko bilan mu def fa presque dix jours ba ñu waroon ko opérer mooy nëgëni kooru daaw bi ñu ko waree opérer mu ne moom daal du opérer ñu def bilan def yëpp mu ne ñu opéré même ñun ay doomam sax mujj gi dañ ko mere woon ñu ne ko yow boo jógee di jàmbat sama lii sama lii sama lii indi la fi mu ne moom du opéré ñu wax wax ba sonn mu bañ. biir bi leen waroon opéré waaye xam nga mag itam ñemewul opération. maam Thierno ne ah comme maman bëggul opéré bàyyi leen ko mu ñibbi mais na jël traitement yi même traitement yi ñu ko joxoon tamit ba mu ñibbee daal diggante bi mu dégg ku ñuy wax Serigne Fallou Rahman. ma ñëw. ci sëñ Fallou Rahman bima ma mu jox ma ay garab ni ma demal ma ñibi ma démé ma di ko naan sama biir di daw di daw di daw di daw ma di ko naan ba mu jeex ba mu jeexee dal ma déllu hôpital ñu ni ah yow de waaw yow fofa ja sa erné bi ma ni fenn ñu ma ah mom dañ na dé mané ne ah, rabbil alamin bo bok léegi dal waxatuma la toog julli waaye léegi sax day taxaw di dox laxat doon metti ci biir bi yépp yàlla def na ni yàlla saafara na ko ci garab yooyu ko sëñ Fallou Rahman jox moom waaw hernie bi ak kii bi yépp dañ na loolu moom man man am naa ci lu ma wér ndax maay doomam bi gën a tuuti ma ko gën a jege ci doomam yi may daal loolu moom man sama bopp man maa koy firnde man maa koy dëggal waaw may ñaanal nag euh, sëñ Fallou Rahman daal yal na la fi yàlla bàyyi yaa xam fa nga bëgg a yegg yal na la fa yàlla yeggal ci barki Seydina Mohamed. ngeen yenn malaise yu bari yeeg yenn AVC yi ak yenn feebar yoo xam ne kenn xamu ko woon ci suñu jamonoy maam yi léegi bari na lool te suñu maam yi rek ay exemple lañ ci da nga tànn gis koo xam ne day dem ba am juróom-ñett fukki at wala juróom-ñeent fukki at te bu la nuyoo yow góor gi nga xam ne góor dëgg la nuyu ay bëñam du deñ ay bëtam du lëndam daawul takk ay veer mu yopp daawul def dara ku ci mësaana tooy da ngay gis mu jël xewar ak loora boole ko ku ci mësaan a am biir buy metti mu jël naan naan ko ku ci mësaan am ak sot da ngay dem jël li ñuy wax rat wala li ñuy wax euh, ngeer nga boole ko ak moom naan ko ku ci mësaan a am góom dem jël békki te boo xëyee dem sa yoon suñu maam yu jigéen yi ngeen leen daan gis dañ daan dem ba am nangami at di am ay tout tànk amoon kàttan lool ku nekk daan bojjee ko roota di def lépp di taxani te mosuñoo am yenn tawadi te jamono yooyu léegi ndaw yi da ngay gis jigéen ñu bari bu ñu seeyee seeni problème li ciy njëkk mooy am doom ay xale ndaw mënatuñoo am doom kon lii li li lii waral loolu war nañ koo xool li ci bon daal mooy di def loo xamut waaye képp koo xam ne xam nga garab gu nekk dosage ba ci nit war naan ak ban effet lay def ci nit nga mën koo jëfandikoo ndax ku ne xam na ni am na ci yenn xeetu sunguf yoo xam ne baaxul nit di ko jëfandikoo am na ci yenn xeeti garab yu weex yoo xam ne kenn waru koo jox nit ndax wér bareetul léegi te estomac dafa bari yenn xeeti fa feebar yi dañoo bari lool ba tax na ñun lépp luñ ciy def duñu joxe garab gu weex ñu joxe garab gu am effet secondaire ta nak ku nangul docteur la waye am kilifa gu daan wax naan guddu fan lepp lo xamne rek jar na nalako jaral ndax nit ku am guddu fan mën nga am yu reey reey kon ñu ngi ñaan yalla ñepp guddu fan te yag fi lool am ay xewal ba lepp lu ñu mebe ci liggeel yalla ak jaam ñu mën ko def kon ñu ngi leen di jox dig dajje di wa salam fa bi ala rabbikuma